salaamaaleykum mbokk internet yéen ñi nga xam ni yéen a safoo di ànd ak seen seen King Production ay ci amati nañ mbégte ak contentement ñëw ak yéen seen premier numéro di émission bi nga xam ne mooy euh, Buzz di King fi ñuy njëkkeek ak yéen mooy ci deewu Fatima Ka di xale boo xam ni amul woon lu dul ñaar fukki at rek te jëkkëram euh, fat ko ci anam bu doy waar ci mbirum toggal añ togguma añ dama demoon euh, visite hôpital mu ñàkk ca bakkanam ba mën naa ni askanu Malika ñëpp nga yanu seeni loxo di yuuxu wàllooy ku ci nekk nee na ngir makki sàll na ñëw dimbali leen ci li nga xam ne mooy ñàkk sécurité bii nga xam ni moom la ñu nekkee mu nekk lu doy waar euh, mbokk internetu King Production ñëpp a ngi ànd di jaale ki nga xam ne mooy famille Fatima Ka yàlla jégal ko ay bakkaaram li ci gën a yéeme euh, newoon nañu dafa ëmb ba toll ci li nga xam ni moom mooy ñetti weer rek waaye autopsie bi bi mu génnee xamle nañu ni kii di fatiment Ka maanaam wan lu woon lor benn yoon bu ñu fa jógee dañuy ñëw fi nga xam ni moom mooy ci làmb ji ndax yeewoo ci nañu naqar ak tiis di magu bombardier bi di Pape Dia feebaroon tolloon ci ñetti weer bi mu tëddee ak léegi yàlla mujj naa def li nga xam ni moom mooy li gën ci moom Pape Dia ñàkk na bakkanam kon askanu làmb ñëpp ñàkk waaye rawatina ki di roi des arènes bombardier ndax moo nekkoon magam doon conseiller am ah, rawatina muy li nga xam ni moom mooy di xaritam mbir mu doy waar di Adja di doom ci ki nga xam ni moom mooy Aline Mbaye ndeer Adja Mbaye nag euh, li nga xam ni moom la def mooy da doon jéem a cambriolé rek ki nga xam ni moom mooy ab copain am bëggoon a jël ci moom euh, somme bu tolloog ci 2 millions de francs CFA. kompaloo ko woon ak ay samba booy mujj gi ñu gaañ ca waaja gaañ yu metti moom Adja nag police mujj na kaa teg loxo ba mën nga ca ndungu siin bu ñu jógee foofu dañuy ñëw ci li nga xam ne moom mooy ci làmb ji ba léegi ndax ki nga xam ne moom mooy euh, Ama Baldé ma ngay dëkk ki nga xam ni moom mooy Modou loolu nag dër la diggante Parcelles ak Pikine dër bi la moom euh, ki nga xam ne moom mooy Ama Baldé li mu bëgg a def mooy jàkkaarloo ki nga xam ni moom mooy euh, Modou Lo daal di fajal ki di Eumeu seen rek naqaram lii ngeen amoon ci Buzz di King di semaine ba semaine prochaine incha allah